tey mu ñëw ba di dem ba ñeenti koñ ba ci juróom benni koñ yow mujje woo ko sa nguréer yàlla na fi yàlla yàggal sëñ bi nag nee na ñu ñaanal ki nga xam ni kenn la woon ci ñun yàlla def mu ay kii sutaat muy suñu xarit Moussa Fall yàlla def mu nekk hôpital sëñ bi nee nañ ko ñaanal yàlla may ko wér gu yaram ba mu dellu siwaat fii ci ci biir bokk ñun bés kon sëñ bi pare na nga def dog ñu doog a defal ko dog yaa ngi tourné ba huit ci guddi nga dugg si préfecture te suba ci neuf heures war nga jël beneen tournée boo ànd ak ministre bi waaye loolu lépp da nga ko teg fee ne foog moo ñëw wuy si préfet ci bésam bi mu ngi la ci sant di la gërëm kon nag délégation bi nga xam ne moo ñëw moom mi nga xam ne mooy nekk toogal ci gouverneur Amadou Sy démb la gannaaw bi fi toogalee président de la république ak premier ministre ensemble du gouvernement toogal fi gouverneur ak monsieur le préfet Fodé Fall moom mooy Omar Dieng Sar, mon ñëw une délégation de bii sous-préfet qui nga le plus plus nord chef de l'État ak l'ensemble du gouvernement ak gouverneur le suñu xarit Mamadou si, itam délégation

Anafa Anasar Ba madame Anasar Ba moom hein Awasar Ba mon ñëw toogal fii chef de service élevage nous avons ci délégation délégations, nga xam ne monsieur le préfet moo ko ki nga xam ne kii développement rural di Samba Sabali moom itam mu nga ne bokk ci ki nga xam ne kii mooy directeur bu SEDEF si di buggu ndaw moom itam mu ngi ne bokk na ci délégation bi l'infatigable le serviteur de l'État nga xam ne foo gis préfet gis ko muy suñu xarit kii wax na ko léegi Mayoro Mbaye moom toakala moo yore lépp luy suri sous-préfecture nekk chef du protocole moom itam mu ngi ci délégation bi léegi su préfet yi jël parole moom moo koy introduire euh, ñu ràññee ki nga xam ne kii mooy Gora géey toogal fii monsieur le maire maire ñëwoon na fi mais dafa ngaan parce que am na séminaire boo xam ne ci la dem a ñëw toogal ko mook Cheikh Dieye Cheikh Dieye ki wax na ko léegi Cheikh ñëw na fii en tant que conseiller municipal waaye ñëw na fii en tant que Mbaye Gueye MG ñëpp xam nañ ni lépp luy liggéeyu bu jëm ci EMG Cheikh Dieye ko cher kon su suñu toogee mbay gay toog na fi ah, ki nga xam ne kii aussi wax nañ ko léegi sa deex sal moo Seck Dieng toog nañ fii sa doomu ndey bi nga xam ne mii toog na fii jël parole ne bés bu yàlla defoon yow sëñ bi màggal gi ñëw fekk la nga nekk bitim réew maa nga tukki man Mamadou Dieng daan def màggal ci du fi war naa ko fi def kooku tey moo wutu waaye wutiwul parce que ñii ko toogal toogal nañ ko fi ah kon Talla Sylla téléphoné na ma mu nga bitim réew nee na ma yaay sama conseil spécial soo ñëwee demal ma ci sëñ bi wan ko ne ko maa ngi bitim raay mais xasaay dama fooy wooy wooyoon ca guddi ga nañ nañ ko teg ci bande bi ñëpp dégg bu ñu xam ne sama xele a ngi fi nee na mu ngi lay sant la gërëm Eh, mu ngi lay wane la tubaarkàlla loo nekk mu ngi ci eh, loolu moo doon li nga xam ne lii mooy kàddu yi moo doon indi su ma soxna Fademba Sane it di saxarit ah ñëw na moom itam tubaarkàlla fokk ma wax eh, ñu yóbbante ma nag benn yóbbante spécial def naa kooku gars yi si si si si ñoo ko wax nee ñu ñu ngi sant sa soxna ñu ngi koy gërëm ku gis lii mu def tey teraanga ji tubaarkalla tubaarkalla tam ah soxna Binta Dieng soxna Binta Dieng ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay sant képp koo xam ne fii Fall Cissé nga sant mbaa Touré tey ji def nga loo xam ne lii lu doy waar la ak njaayeen yi ak seen yi tubaarkalla tubaarkalla kon nag sëñ bi tubaarkalla kàddu gi du gudd ndax gudd na dafa guddi ba pare te préfet nañ la ko suba 9 dafa am programme bu muy demee euh, sëñ bi itam nee na ki nga xam ne kii mooy Lamp Fall mii jaww na moom ci këram di dëkkandoom euh, mu ngi koy sant mu ngi koy gërëm kon nag léegi euh, ñu bàyyi leen ak kàddu gi di sant ñëpp allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sëriñ Moussa Fall di ko gërëm Kawsar di sant bu baax ak sëñ bi ñu liggéey sëñ Ibrahima mi ngi toog bi doom sëñ mën Njaay suñu ab rax sant nañ ñun ñëpp waxoon nañ ko fii waxaate waaye noonu sant tam délégation bi xam ni dañuy liggéey ci góornóor ñëw te sëñ Fall rek tax leen ñëw te day wax ni moom ñor noonu ndax ki ko digal mu sëñ Fall lii si xam ne wax rek ut lu gis ndigal rek lañuy wéy te sëñ fari yu mu digle bis bi jox ko suñu asam kon ci loolu lañuy wéy kon bu yàlla dogalee ay kilifa toog ñëw ngir bisu alaaj bi Mouhamadou Fadil jóge ci nguur bi ndigalal préfet ci ndigalal gouverneur ak boroom réew mi ak ci ndigal préfet ñu yebal alxaaji Omar Dieng saa moo ànd ak délégation bi ñëw ngir ñu jokkante kaddu ngir bisu sëñ Fallu bi loolu ak kenn rek la ci mu leen sant baax di leen jël di leen ñaan yàlla may leen jàmm nawet bi ñu jublu saa sot so sol ko su tam sedd guy barki sëñ fam sant bu baax suñu war lay séeral sëriñ Mouhamadou si ak ma yoroo Mouhamadou Sy lu mu koy sant dina ko séeral nag ndax de sant koo la defalul dara ak naa fexe te nu mënewul waaye bis bi ren jàpp nañ jàpp ne mu rafet mu yegg foo xam tam duma ma génn tey ji nag woo na ma téléphone ñett yoo